ci suratu duha bañ ko wàccee ci yonent bi rek dafa commencé di wax laa ilaha illa allahu allahu akbar laa ilaha illa wallahi alhamdu moo tax mu fassiruuna yëpp li ko doree fii ba saar wa di jeexee ba eh, téere bi di jeexe saar wu rek buñ koy hubbi loolu la ñuy wax laa ilaha illa allahu allahu akbar laa ilaha illa allahu wallahi alhamdu lu waral loola ak sant la ak bàkk yàlla ci gannaaw naqar ak coono waxoon nañ ci tafasir yi ne kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi wax yu gi commencé wàcci bees suratul alaq wàcci suratul muzammil wàcci muddathir wàcci mu mos caf nga ak alquran ak leeraay ga ak neexaay ga mu jékki-jékki rek mu kuppe nag mu jaaxle lool amatul réseau daana yéeg ba ca kaw montagne ya bëgg a daadu ngir ak ndokk noon yi waaye mu dégg lu koy xoo te du gis jëmm ju ne ko yaa muhammadu anta rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu wàccaat fekk li waral dagg ak waxyu gi mooy ne yonentu bi biñ ko yónnee bees ca Makka waa Makka yi di ko weddi dañoo taxaw ñoom ña am xel waxtaan ne ñun ummi yi na lañ jànguñ dara waruñoo weddi kii ci suñ biir nañ yónnee ab délégation ngi demal madinatul munawara booba Yasrib la tuddoon ay yahoo ta nga fa jàng nañ tawreet jàng linjiil jàng téere yu njëkk ya ñi laaj leen am na ku ñëw ci ñun mel nii mel nii diw ak diw ñooy ñooy ay waajuram année sàngam la juddu nangami at la am dafa taxaw ne yàllaa ko yónni ki ñun ñoo ñooña luñ ñu wax nag ñu man cee sukkandiku soo xamut da ngaa war laaj ki xam ndax fas alu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun waaye jëkk di wéddi te li ñuy wéddi teguñ ko fenn loolu tamit baaxul ñu yónni benn délégation ñu dem Yasriba bañ demee fekk fa kàngaamu ya ñu laaj leen ne leen dafa am ku ñëw ci ñun ne yàllaa ko yónni ki ñun su ñoo xam ci moom nag wax lu duhul dëgg wax ni mel ñoo nge ne leen bu ngeen demee laaj leen ko ñetti laaj bu tontoo ñetti yëpp duhul yonantu bu ca tontee benn duhul yonantu bu tontee la ëpp nag delloo la gën a néew yonantu la xam nga ñett moom ñaar a gën a bëri bu ko tontoo rek delloo benn ba yonantu la bu tontoo ñett yëpp duhul yonantu bu ca tontoo benn delloo ñaari duhul yonantu laaj ya nag ñoo leen koy jox bu ngeen demee laaj leen ko mbiram ashaabul kahfi su ngeen ca bàyyeekoo laaj leen ko mbiram zul qarnayni su ngeen ca bàyyeekoo laaj leen ko mbiram ruux ci lañ ñëw nag di laaj si yonantu bi sallallahu alayhi fekk mu toog gannaaw bi délégation ba ñëpp see mu ne leen dem leen ba suba bu ngeen ñëwee dinaa leen tontu fàttee wax insha allahu te nag yàlla nag yàllaam gi boo ci génnee mashiatu mu neex ko mu def mu ñàkk koo neex du am yàlla ga jeex tàkk yàlla nag ne a ah sama ndaw lii ma nu koo mosal sama leer gi rek léegi muy jël décision wu boppam tama nekk fi bàyyil ba suba suba jot nag kilifa ya ñëw nag ne ko ah la ñu doon laaj kat moo ñu tax a ñëw ah kuy waxee ndigal bu ndigal ñëwatul nooy waxee loola nag yàgg ci moom ñu koy cuqi-cuqi di ko ree xam nga ndokk nen neexut ku ne muslu na ci yàlla su ko defee tamit metti na ci biir noon ñu lay ndokk loo xam ne ñu ngi ñu ngi cay teg seen bët mënoo ca dara ah distance ba nag gudd na ni li ñeen fukki ñeen fukki fan ñeen ñeen fukki fan ak juróom mais ñeent fukki fan moo gën a wér moom la suñ mag ñi tànn su ko defee nag diir boobu nag mu métti lool gannaaw si ga nag gannaaw jafe-jafe yomb-yomb ci la nag yàlla wàccee na ko wala taqulanna li shay'in inni faa'ilun dhalika ghadan illa an yasha allah bul waxati dara ne danaa ko def suba lu dul nga ne insha allahu door nag wàccee wa duha ne ko nag mbir mi yor yor la nu mu gën a yàggee gën a leer danaa la joxe jox ba nga gërëm nag ñooy wax ne dama laa bañ maa ngi waat ne maa waddaaka rabbuka sa borom bàyyiwul la bu la bàyyee ku muy jàpp ñi ngi wax ne dama laa bañ wa maa xalaa sa borom bañu la wa maa xalaa ka la woon mais bi moo tax mu ne ko bañul la wallahi wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda sa borom dana la jox bëgg a gërëm yonent bi ku tabele nee na du ma gërëm mukk feeg sama xeet wi kenn na ngi nekk safara man daal bala maa gërëm day fekk ñëpp dugg dugg aljana waaye fekk kenn des na ku def ku nekk safara rek du ma gërëm xeet wi nag mooy wax ñuy wax laa ilaha illallah tey pratiquer li yonent bi santaane ñi def lañ man lañ la yonent bi tere ñi bàyyi ko ñooñu nag mu ne fekkee na nga ci safara man yonent bi du ma gërëm kon loolu ñu ne aaya mooy aaya ji ëpp yaakaar euh, maanaam ci alquran ñeen ngi ne bi ëpp yaakaar mooy laa taqnatu min rahmatillah inna laa yaxfiru zunuba jamian waaye yàlla bii daal wax dëgg yàlla xam na yaakaar lool kon bee dafa man yàlla dinaa jégale bàkkaar yëpp euh, waaye xóorul ñu ndax tamit liñ def ci yiw danañu ko nangu lam déet danaa jégale bàkkaar yi la wax waaye fii ne maanaam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda yonentu ne du ma gërëm fekkee na ngi des kon kooku day wane ñëppay dem aljanna foofa loolu kon xel mu dala dal la waaye nag bu ci kenn sukkandiku de nañ ci lu de def ko muy muy eseel bu ñuy yéeg rek jëm ca kaw waaye nag e, xoolu njayam yàlla ku ku yà ku yàqule moo la yàqal laa yamunu makara laa ilal qawmul xaasiruna la alquran wax kon nañ def ne Aboubacar def de nee na du ma xoolu njayam yàlla feek sama tànkam nday bi neexul saraax ci biir aljana càmmooy ba nekk gum ci biti du tax sax ma wóolu damaa xamul càmmooy bay fekk seem nday jor bay fekk si Moussa ne du ma wóolu feeg dugg ma aljana su ma dugoon sax du ma wóolu ndax sama maam aadama duggoon na te génnaat te mën nañ ma wax génnal kon kon kenn du wóolu feeg yaa ngi fi rek booleel xaw fa ak raja waaye naagu baaxut kon loolu yàlla defal yonent bi lay wax si nii ci la ko waxal nag roox ak num deme waaye salunaka ani roox tontu la lu gàtt la quli rooxu min amri rabbi laaj na ko a ashaabul kahfi mu ne innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan wax na ko maanaam fil qarnayni mu ne ko qul sa atlu alaykum minhu zikran ndoo yëpp mu leeralal ko ko kon nag euh, ci lañ jëlee kuy waxati lu ne mu ne waxal insha allahu dafa ba nit dafa war a tënk mbiram ci coobaree yàlla waaye ñi wax la mel ni yaa moom sa yëfi bopp waaye déggee nañ ci tamit boo nekkee ci roon kilif téef bul jël sa decision ta fekk sa kilifa gi joxul la ndigal bul nekk ak ministre bi jékki-jékki rek di jël ay décision yoo xam ne ministre bi moo ko war a jël wala nga nekk keneen muy sa kilifa moo war a jël décision yi nekk ci kër gi nga jël di jékki di ko wax te moom waxagul la defal loolu tamit baaxul moo tax kon na ko wala taqulanna li shay'in mën nañ caa déggee lu nekk nangu kilifteef te bala ngaa jël benn décision tamit na fekk sa kilifa gi joxe ndigal ba pare nga door caa dem so ko defee loo dugg da nga ci xam da nga da nga ci xam nga ci xam barke moo tax yàlla ne wa duha yàlla mi ngi gën ci yor yor wallayli ak guddi gi lépp ida sajaa ndeem dalna na ida sajaa ndeem muur na la ndëmam gi lu may gëñ jawaab ba mooy maa waddaaka bàyyiwut la rabbuka borom sax wa maa xalaa bañut la walal axiratu xalaaxira xayrun moo gën lakka ñaan minal uulaa ci àdduna wala sawfa yuxtika xal si na laa rabbuka borom sax fa tardaa ba nga gërëm lii firnde nag dana la jox ba nga gërëm alam yi ci ndax la woon yatiiman ngay jirim fa aawaa mu tàpp la ci sa baay tëx bi abu taalib mu gën laa sopp ay doomam wa wajadaka fekkoon na la daalan ngay aji réere sharia xamoo ko woon fa hadaa mu gindi la ci sharia waaye doo ko fi réeréer goo xam ne jàdd yoon la déeréet xamoo woon sharia rek yàlla xamal la ko wax na ko beneen aaya maa kunta tadri mal kitaabu wala imaan moo ko firi wa wajadaka fekkoon na la ailan ngay aji ñàkk yoro ku yor fa ax naa mu xooma lal la ci doylug bakkan mbaa mu xooma lal la ci maanaam alali alali sayyidatuna Khadija mbaa mu xooma lool la ci sa ron guntu comme ni nga ko waxee kon nag fa amal yatima ndaal jirim fala taqhar bul ko xeeb bal jee xalalam wa ama saa'ila ndaal aji laajji fala tanhar bul ko jajji fala tanhar bul ko gëdd wa ama bi ni'mati rabbika ndaal sa xéewali borom fa xaddis na nga sax dakk ci maanaam di ko waxtaane saxal dakk di waxtaane xéewali yàlla ndax yaa ñu waxoon ne ataxaddusu bi ni'matillahi shukurun wa tarkuhu kufrun kon lii la aaya ji ëmb walal axiratu xayrun laka min al ula yàlla ngi ci xamal yonantu bi ne ko nit nga koo xam ne toujours sa tey dafay gàccaal sa démbu sa démbu day gàccaal sa bërki démbu xam na ci nit ñoo xam ne nag seen tey dafa gën a yées seen démbu waaye yonantu nag moom dundam lépp escalier la bët bu set rek day gàccaal bisab dembam ba moo tax mu daan wax ne wa innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawmi sab'ina marra ndax moom gendeeku gum gendeeku ci benn seconde bu ne bu ko comparé seconde bu paase day mel ni bi mu nekkoon bàkkaar la mu mujj jéggalu te yàlla juróom-ñaar fukki yoon am na riwaaya bu ne téeméeri yoon waaye amul bàkkaar bay jéggalu yàlla euh, waaye dafay dugg ci rek xasanaatul abraar sayyi'atul muqarrabina boo ko comparé waaye tamit wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda sa tay moo gën sa démb ci aaya ci la imaamu Malik jàppee ne madinatul munawara moo gën màkka ndax madinatul munawara mooy tay yonantu bi màkka mooy démbam imaamu Shaafi'i ne màkka moo gën madina ndax fa kaaba ga nekk fa la yonantu ba juddoo fala la maamam ya juddoo fa lañ wàccee alquran fa la njëkk a wàcce alquran fa la jabalul maanaam euh, diggante Safa ak Marwa gi ñuy baagante fa la nekk waxa waxa wax ba waxam bëri imaamu Malik ne ko benn aaya rek laa lay tontu walal axiratu xayrun laka minal ula yonent bi yàlla dafa ne ko sa tay moo gën sa démb lii nga wax lépp ci màkka démb la woon tayam nag mooy madinatu munawwara kon madina moo gën màkka loolu la loolu la loolu la imaamu Malik gëm su ko defee tamit nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallama walal axiratu xayrun laka minal ula nañ ko ci roy kenn ku ci nekk fexe sa tay gën sa démb sa démb loo ci tarxiisoon lu tegewutoon ci yoon nga jéggalu ko yàlla gën a takkaayuwaat rek gën a jaamu yàlla ci ci ci ci tay gii nga fexe li ngay def ci yiw ci mbaax fexe ci tay mu ëpp démb ku ko def rek sa dund mu gudd mu gàtt rek da nga xam résultat waaye nag koo xamee ne ni da nga fee yàgg lool te yàggee xoo fi su boobaa loo fi yàgg-yàgg tamit doo xam résultat kon yàgg fi baax na mais yàggee fi mu ëpp solo yàgg fi bu ñaar yëpp mën a na mu gën a baaxal mooy yàgg fi te yàggee fi rek yàlla nañu yàlla may yàgg fi te yàggee fi su boobaa moom ñu ne ni mën a am wala axiratu xayrun laka minal ula yàlla ne ko fekkoon naa la nga réere sharia waaye nekkul réer ak sànkoog ñàkk a tegu ci yoon ak yu mel noonu li ko ñenn ñi mu fassiru ne yi waxee déedéet nag ah, xamoo woon sharia rek man yàlla ma xamal la ko ñenn ñi ne dafa réeroon sax benn bis yonent bi ci xale rek réer na màkka jug di ko seeti kenn ku ci nekk dem di ko seeti yàlla nattu abi lahab moo ko gis ah, ba mu ko gisee fekk ko ci wenn xuur mu toog mu ne ko noo tudd mu ne ko Muhammad kuy sa baay nangam euh, nangam ak nangam ba ko laaje mu xam ne moom la mu teg ko ca kaw gëlëmam ga ba mu boo demee ca ulama aw sere yi ba mu ko tegee ca gëlëmam ga ca kanam la abu abi lahab toog supporté yonantu bi ci gannaaw gëlëm gi ba nga dem mu dóor dóor gëlëm gi ba nga dem ah yàlla miy wax loo lépp nag yàlla wax loo gëlëm nga ne ko yow naka ngay naka laay mën a demee ki la war a jiitu nekk sa gannaaw soo bëggee ma dem kay ki la war a jiitu na nekk ci kanam rek mu jël yonent bi teg ko ca kanam su ko defee nekk ca gannaaw gëlëm ga door daw te ànd ak loolu lépp na ba dee te ko kon am na koo xam ne bu newut ci kanam rek lépp yàqu yonent bi moom ci kanam rek la war a nekk ku ko yóbbu ci gannaaw lépp yàqu kon loolu lu jar a bàyyi xel la moo tax mu ne wajadaka daaran fahadaa fekkoon naa la nga ñàkk ñàkk gi gën a métti moom nga am moo yoroo yoroo ku yor kooku moom moo gën a métti yaa ngi nii ñaari weer nga am ci sa biiru yaay sa sa baay génn àdduna sonnoo koo xam nga judd di jirim sa yaay am juróom-benni at nga génn àdduna ngay baayoo ñu jox la sa baay sa sa maam mu yar la ñaari at la diire rek nga am juróom-ñetti at muy Abdul Muttalib nga génn àdduna yari yari jàllant yooyu te nga gën a yaru ñëpp gën a baax ñëpp su ko defee tamit ñu jox la ñu jox la sa baay tax ba Abu taalib mu sopp la ànd ak nekkutoon ci sa diine sax waaye bëgg na la nu raw ni mu bëggee ay doomam balaa nga balaa lekk yaa lekk balaa solu yaa solu balaa doomam ya lekk yaa lekk mu jël la toppatoo la ba am juróom fukki at yu manqué ñaari weer Abu Talib door a génn àdduna su ko defee tamit njëkk loola tamit sa ñeen fukki at la Xadijatu ñëw yàlla may la ko mu ëpp alal ci Màkka lam am lépp mu yëkkati ko jox la ko kon yàlla xoomal na la daana wax na tamit yàlla xoomal na ma sama roon sama sama sama guntux ci xeejam ba daan xeex màng ya lam ci amee kon woo jadaka aayilan faax naa comme nag yow fii nga déparé nekk jirim kon boo gisee tee ab jirim waay ko xeeb boo gisatee kuy laaj ku ñàkk waay waay bul ko yedd bul ko jajji foo toll tamit del waxtaanee sa xéewali borom ndax xéewali yàlla def ci yoo dafa bëri xoola fi la xéewal toppee ba bis ni ki tey dafa bëri euh, su ko defee kon wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ci ngay déggee ne sant yàlla ñetti xaaj la sante yàlla ci sa xol yàlla defal la xéewal rek nga yëg ne xéewal gii ci yàlla dong la bàyyee ko yaay ju baax mayut ma ko baay ju baax mayut ma ko calawaay du moom sëriñ bu mën a ñaan mayut ma ko ci waaye du moom yëg gi nga yëg na ci yàlla la bay ko rek sant la moom la alquran ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah ñaareelu sant ga mooy sante yàlla def effort yàlla jox na la wërsëg sa sant yàlla duhut alhamdulilah dafay xeebu déedéet fexeel ñi xiif nga fexe bañ lekk yàlla jox la xam-xam sa sant yàlla joxut alhamdulilah li hadana li hada déedéet sa sant yàlla mooy nga fexe def effort ba ñu réer nga gindi leen yàlla jox na la doole sa sant yàlla duwul maa ngi sant yàlla kartan gi ma jox ak bi déedéet fexeel nga yërëmi ci te dimbale ci kon kooku mooy i'malu ala daawuda shukran moo tax yéen waa kër daawuda loolu la ko yàlla wax beneen bi nag moo gën a suufee mooy maanaam wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis mooy yàlla dafa la xéewal nga toog di ko waxtaanee man daal vraiment sant naa yàlla place bi bi ma ko bëggee fu ne jaar naa fa waaye yàlla mujj dimbale ma nangam ak nangam te bi nga koy wax nag bul bàkku wax ko rek te sant yàlla tax amma bi ni'mati rabbika fa hadis kon ñetti sant yàlla yi moo ci ne boo dee maam Khalifa a ngi koy wax bee mu mu nga xam ne Ahmad Sukayru ji moo liggéey téere ba ba mu ko liggéeyee maam Khalifa di ko sara ba mu xegsee ci fii la yooyu ci laa ko gis mu ne sant yàlla ñetti xaaj rek la muy ñett yi sante yàlla ci sa xol wa ma bikum min ni'matin sante yàlla ci def sa effort i'malu al daawuda sukuran sante yàlla ci sa làmmeñ fa amma bi ni'mati rabbika fa hadis mu ne yi rek moo ci ne ci